salaamaaleykum internet Senego TV ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi fii nag ci kër sëtu xalif bi fii ci Cambérène Abdoulaye cawlaay wante it dañu fi fekk ay gan yu am solo ñu bàyyi rekk sëñ bi jox ko mu nuyoog internet yi présenté wu naam bu nekkee sax internet yi xam nañ ko wante day baax ñuy def rappel sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax Diagne. maa ngi leen di fay man la grand sëñ de Dakar Pape Ibrahima Diagne. sëñ yéen kàddu nga mën a yëkkati tey ci 43e édision appelu Seydina Limamou Laye. kàddu yi li ci jëkk mooy nuyoo euh, mbokki jullit yëpp mbokki réew mi bi ci des sant lay doon mooy sant yàlla bi mu nu fi bàyyee ñu woon ko daaw ñëw fekke wat ko ren. bis bi nag bis bu rëy la ci lislaam fii ci biir ndakaaru ndax Seydina Limaamu Laay Madiyu fii la fekk baax fii la feeñe fi la jëflanteeg jaam ñi fi la ko yàlla maye lim ko may mu esaare ko ci biir réew mi ak àdduna loolu moo doon tànk yi donc tànk yi tànku jaamu yàlla la euh, tànku sàkku barke la tànk yi sàkku ñaan la tànku it kóllëre ndax ay bokk ku seq ñëpp xam nañ ni Seydina Limaamu fi mu bokk moo ci lébu yi la ko yàlla xeetale yàlla dogalit ak bokk gu rëy nekk sunu diggante fii nga ma fekk tey kër Seydina Issa Laay la kër Seydina Baye Ablaye Thiaw Laay la kër sëñ Mor Laay Thiaw la kër Seydina Issa Laay caw mi yàlla teg lépp ci loxoom tey muy kii di sama jarbaat ma bokk ak ndeyam baay moom la ñu wuyu si ngir feddale kóllëre sunu digganteeg way juróom wu baax ba bàyyi moor laay caw bàyyi ko fi muy taawam bis bii nag dafa yàgg ndax suma bàyyi ko daan teewe alaaji Basiru Jaañ Marème Jóob bi yàlla defee li gën ci moom mooy mu dellu man la fi yàlla teg may feddali kóllëre googu séqoon koog baayam baay Mor laay caw ñu bokk baay yàlla jële ko fi may feddali kóllëre googu ci sama jarbaat bu baax bi nga xam ni jar na ku nekk jóge gi ndakaaru dox ba bitim réew ngir fekk ko fi ndax yaram ak tegginam ak mbaaxam lii moo doon tànk yi am na solo sëñ bi dernière question rek ban message ngay wax jeunes yi ndaxte tey bu ñu xoolee appel bi chaque année rek ndaw yi dañuy gën a taxaw gën a am détermination du suivre li nga xam ne Seydina Limaamu Laay bàyyi na ko fi muy ay recommandation wante ci beneen wet ba da gis ñoo xam ne naam duñu bon mais dañuy xaw a jéggi tuuti yoon ban kàddu ngay yëkkati ci ndaw yooyu. kàddu yi kàddu diine lay doon ak kàddu yi aada. ndax ñun ay kilifa ay kilifa lañu yoo xamante ni bii jullit lañu te jullit dafa am nu mu tërale ci yoon ci jullit ci magum jullit ci gone goo xam ne lislaam ci nga nekk waaye mu am leneen muy aada ay lébu am nu baaxoo am nun yare noonu nu yare nag moo nu indi fi nu toll ataa ndaw ndaw ñaar rekk ku jig sàkku xam-xam ak jub ak liggéey ndaw loolu rekk dañ koy doyee ndaw daal boo amee loo koy wax ne ko jàngeel xam-xam bu jàngee ba noppi na liggéey bu liggéeyee na jub lii daal laay wax ndaw ñi attaa réew mi coow li dafa bari te coow li yëpp ñi ko indi mooy ñi gën a néew ci réew mi mooy ñu ñuy tuddee politicien te képp kuy yeewoo ci réew mi xam nga ni coow li fi nekk nekkul ci baatu kenn ku dul politicien yi am nañ wal ci réew mi ñoom waaye nañu bàyyi xel ñeneen ñi am wàll ci réew mi te politique gu politique it kenn mënu koo tere kenn li am nag mooy ñun ñëpp jàmm dong moo ñu jig jàmmit la ñuy sàkku alalu réew mépp bu nu ko sàccoon baal nañ leen na rees ak jàmm waaye ñu may ñu jàmm nag ndax bu jàmm amul appelu Seydina Limaamu bii kon doon ko mën a fekke tey bu jàmm amul weeru koor wii ñu dëgmal kenn du ko weer ci jàmm waaye nag jàmm nag ay nit a koy dox di ko wax di ko jëfe maa ngi lay sant nag bi nga ma joxee occasion ma wax waaye li buy dañ ma tënkoon ni ma bul wax ndax joxagun la baat pour nga wax ñu ngi daje fi mu ne di waxtaan pour génne loolu waxtaan ñoom li nga xam ne moom lañ xalaat ci réew mi fi mu tollu tey waaye li nga xam ni mooy dëgg daal mooy kenn amul looy jàngal sa moroom ci réew mi nu nag yàlla dimbali nunu nu fekk fi Senghor fekk fi président Abdou Diouf fekkeek moom dajeek moom fekk fi président Abdoulaye Wade ba mu jeexal yàlla dimbali nu may ñu jàmm ak salaam nu fekkee Macky Sall ñoom ñëpp ku ci ne xëccoo nga réew mi ci jàmm fii nag ci région de Cap-Vert dafa am secret bu ma la ciy wax képp koo xam ni weesu nga bar ñi jëm si fii te yàq rek tax laa jóg doo àggale. lay maxtaan ñuy ziar. ñu ngi delloo ziar soxna si. tey 43e édition bi say invité di ñëw ki ñuy jël sànq gis nañ kàddu yi nga xam ne am na solo yëkkati na ko tey nga woote ñu wuyu si la ban yëg-yëg nga am ausbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al aliyul azim ñi ngi leen di e, nuyu di leen ziar di nuyu mbokki internet yi képp ku ñuy seetaan ak foo mën a ne ñi ngi lay jox suñu loxo xol di la ñaan suñu video bi yàlla nañ ko seetaan ci jàmm mbégte rek la ñuy am saa su ne bu woote Seydina Limaamu bi alayhi salaatu wa salaam yegsee ndax bis bi day bis bi nga xamante ne lépp lu ñu am moo tax ndax woote bi moo ñu goreel comme ni ñu koy faral di waxee ñu am mbégte nag di dalal gan yi comme ni ko daan defee ndax suma kilifa suma nijaay grand serigne de Dakar Pape Ibrahima Diagne wax na ko daanaka li mu wax tënk na lépp. dafa direk loo xamante ne mënul ñàkk waaye day bis woo xamante ne su ma way jur moo ko doon taxawee Serigne Mor yàlla na yàlla yokki leeram te taas ci barkeem euh, ñu nag mënuñu def lu dul rek topp ay tànkam ndax euh, loolu la ñu ci loolu la ñu yar donc ci loolu la ñuy mën a tegu moo tax bisu bu yegsee lépp lu nu am lu nu mën dañ koy def ànd ceeg nag sunu ay xarit su ay mbokk sunu ay am di jàmm moom grand Serigne bu bis bi yegsee moom itam mu mu feddali kóllëre boobu nga xamante ne amoon na ko ak sunu wéyjur moo waral teewaayam fii macha allah di koy sant di ko gërëm ndax nijaay la bu mat nijaay nijaay la bu nuy tiitaroo nijaay la bu seetaanul benn jarbaatam kenn ku bokk ci moom seetaanu la ñu ngi koy sant ci taxawaayam ndax lii rek la xam mooy teraanga lu jiitu bis bi di teru dalay woo dalay nemmeeku day xool loo mébét lu mu am ak ku mu am mu def ko ci bis bi kon nijaay yàlla na yàlla yokk taxawaay bi yàlla yàggal la sunu kanam bis bi ñu koy yàgg di fekkee kenn bañ a manqué wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu